après gars ñi tourné naan Free Diomaye Free Diomaye te la mu mënoon liggéeyal parti bi dootu ko mënati donc loolu il faut que ñu xam ne ne du ñëpp ñoo mën a wàcc ci terrain bi te am na ñoo xamante ne Sénégal bu leen fàtte ñun dañu nekk dëkk boo xamante ne dañu dégg ndigal comme ni ma la ko waxee nga doon jigéen nga bëgg di résister sa boroom kër ne la boo wàccee boo fi génnee di nga xam sa sëy mën na fi yam mais da toog de rébellion boobu moo des ci ñun parce que ñun dafa am yenn yoo xamante ne dañu ko inculquer ay valeur nga doon xale nga bëgg wàcc manifester say waajur ne la bu fi jóge bu fi dem ndax gis nañ seen moroom yoo xamante ne fii la ñu dee fii lañu kii ñu ci bari dañuy dañuy toog et puis y a un sentiment de terreur boo xamante ne nañ ko waxante dëgg dafa am Sénégal dañ ko fa wàcce dafa am un sentiment de peur et de terreur moy li ma lay wax ne ngay xeex ak ku yor xeer di xeex ak ku yor ku yor ku yor ay euh, ay ay pistolet di tirer à barre, balles réelles du ñepp ko mëna a dékku nañu waxante deug donc loolu mo waral ni ci période bi ñu tollu ni ñu gis ne résistance bi nga xam moy wacc ci terrain bi nga xam amon nañ ko en 2021 en 2023 et on a d'autres formes de résistance comme ce qu'on est en train de faire là de dénoncer au niveau international toutes les barbaries yi nga au niveau du Sénégal et que ces institutions là qui ont des accords avec le Sénégal nous nga xam tamit Sénégal ñu parce que affaire droit de l'homme la ñu affaire au droit de l'homme crime contre l'humanité amul euh, amul qui donc c'est le terme bi nga tout le temps daf may <laughs> daf may amul prescription amul prescription donc euh, il faut se dire que c'est un combat sur le long terme aussi dans tous les cas il faut que le gars y paye donc loolu mo waral euh, résistance bi nga xamné mom lañu amone en 2021. man ci sama propre analyse et ce que je dis n'engage que moi hein, je le dis loolu mo waral enga mobilisation bi ñi en 2021. amuñu ko en 2023 tant mieux tant mieux parce que man que ma le président Ousmane Sonko yakaron nañu ne population bi dina ah, mobilisation mais am vraiment mais ñi donc euh, bu faites connaître, ce peut-être que dinañu indil yeneeni cas ba jël Sénégal dañ ko def état de siège ñu wàcce militaires yi génn fii ba ñu toog naan léegi élection mënatul am donc élection bu mënatul am parce que y a plus de sécurité je continue donc xëy na yàlla moo ko jaarale foofu mais mobilisation bi mu ngi continuer di am mais avec un autre type euh, de mobilisation et de résistance